Euh, donc salaamaaleykum euh, mbokki Malicounda parce que du fay sama kii xaaral tuuti Ablaye ñëw mbokki Malicounda mbokki ñenn ñu ngi leen nuyu di leen ziar yi ñëpp di leen jaajëfal ci turu coalition Diomaye euh, président bi nga xam ne nii mooy Ousmane Sonko fii ci ñu ngi fii nag ci Nianing man maa ngi tudd Ibra Diack nekk chargé de communication euh, de la coalition Diomaye président fii ci Malicounda maa fi jël kaddu tey jëkkee d'abord remercier population village yi nga xam ne daanaka yëpp wala quartier yi nga xam ne daanaka yëpp tey moo nekkoon journée de lancement bi di dimanche 10 mars ñu commencé ko fii à Nianing patriote yi bàyyeeku fu nekk à travers Malicounda dans la zone nord comme dans la zone sud ñu def point de ralliement depuis ce matin commencé ko ak la GPS ñu def ñu njëkk a day nag doogay nag def ce qu'on appelle la grande caravane ce soir. Euh, nii lañ ko décidé lancer campagne bi ginnaaw bi ñu terminé les journées distribution des flyers euh, fee ci Mbaling journée Falo journée euh, War dinañu donc décidé. lancé campagne bi fi mu ne nii jeunesse ñoo njëkk a ñëw ce matin waa JPS ñu leen di jaajëfal ak seen opération fatt fopp daal di njëkk ci quartier yi gën a sori commencé Nganjol jaar Sinthiou Keita jaar Gagna Bougou jaar également. léegi récupéré bi nekk côté droite da ngay jël dalal bi pour mu gën a leer quoi jëlal benn bi waaw mu gën a leer. donc ñu sillonné euh, quartier yu bari depuis ce matin. daal def pause repas fële sanc léegi na tey aussi lii mooy fi ñu convié woon le militants ak euh, les patriotes ñu tase fii Agnani def une grande caravane au nom de la coalition président di ci profité nag di sargal di remercier patriotes yi di wax nag liggéey bi commencé na campagne bi commencé na te nii lañ ko fas yéene jàppee ba 14 jours jeex mu des dimanche 24 mars incha allah rabbi avant midi coalition Diomaye président daal di gagné premier tour au main. li ñu gis sur le terrain en tout cas bu ñëwee ci urne yi ñiy wax 70 pour cent dañoo juum élection yi lu ñu mësul gis Afrique ci àdduna bi ce qu'on appelle expo soviétique muy 80 pour cent au premier tour ñun moom lañ gis te population yi ak nañu bu baax a baax spécimen yi kon nag ci gàttal lii mooy lu ñu mën tënk ci li ñu def. léegi moom frère Robert dina ñëw wax ci les perspectives ensuite lum également ñëw daal di joxe euh, parolu coalition bi ndénkaani coalition bi également na ñu ñu war a doxee liggéey fii euh, ci biir ci biir Malicounda pour la croix Diomaye Diomaye Faye donc lu dinañ ñëw donc maa ngi gàttal kàddu yi foofu ko muy guddi di leen jaajëfal baax a baax a baax di remercier di remercier gars yëpp ñenn ñi mu remercier ñenn ñi mu leen di jaajëfal liggéey bi rafet na et le travail continue da ngeen jëf merci beaucoup voilà